saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa bilan école de lutte Balla Gaye école de lutte bu la Lion de Guédiawaye Balla Gaye 2 7 victoire la am 8 défaite boo seeni combat mu nga toll ca 15 yaa ëpp victoire ya donte benn la ko ëppee journal ba xëy fësal seeni combat fësal seeni victoire fësal seeni défaite rax ca dolli ne l'école Balla Gaye en nette régression école de lutte Balla mu ngay deltu ginnaaw école de lutte Balla bu Balla année génn di 2018 de lutte Balla Gaye mu ngi amoon 11 victoires 6 défaites la ca tegoon ak 3 nuls ci sunu lamb bi ñu ngi ko placé woon 18e waaye bi saison dañoo wàcc ba wàcc fu dara nekkul 7 victoires la am 8 la ca gën a yéeme nag mooy mbooleem kuy ténor ci école de lutte Balla Gaye da ngaa année seen leader ba Balla Gaye 2 mu nga gëj a bëree ci digganteem ak Modou le 13 janvier ba mu ca jógee ba léegi amaatagul combat ko moom bàyyi bëri la gën a jege cinq saison balance la tegale kenn xamul ci lu mu nekk juróomi saison yoo xam ne bëriwul kenn xamul ci lan la nekk depuis ba ko assurance bu Mbour daanee le 13 juin 2014 ba léegi moom soo ko sim kenn gisaatu ko bu dee lees ma fi bëre woon ak Modou Lo Boy Niang 2 ak Cheikhou Diène moom kenn gisaatu ko moom lees gisul promoteur gisul mbër mu ko soxla li ni mel nag bu ci continuer boo moytu dana tekki ngembam bile écrit seeni sept victoire caaroy 44 saa daan àdduna bu sàngumaar seen huit defet ya petit bu kaay baax moo daan jaw de doomu se bi daan daan caatuwaali lébu bu mbuur tefes daan bébé garga booy bu Fatick daan ëmma de garo daan jon kara barage bu kër masaar daan saacoor papakan de bu caaroy cap vert daan arlem lës bu ñoom daan lat ñoom waa école de lutte Balla lii mooy seen huit defet bu dee seen coach ba Lamine Golo la mu Dior Diaw 2 ak Bébé Garga yile defet ba léegi mënuma ko digérer bu nu jàllee ca général Malika ba léegi combat ba war dox ci fils de Balla moom fàttewu ko bàyyiwu ko saa yu xëyee ci lay dox ci lay wax la mu mujjee wax ci sunu làmb mooy fils de Balla ne peut pas m'arrêter fils de Balla mënumaa téye mënumaa yëngal maag moom ci géew arbitre génn sunu diggante ay mbokkam danañ ko lëng yóbbu ko jamono ji maa ngi liggéey lu metti di ko xaar ci roq bi ñaari séance moom fils de kuy mbokkam jouru combat ba boo amee soxla ba war a doxi la am te dina ko jël bu dee ak Balla Gaye sunu lamb xëy na ca ñetti atu yi la am ngir daan Balla Gaye muy force physique di expérience di bagaar bu dee force physique Gris du mbër mu néew kàttan mbër mu néew doole ku jàppanteeg moom da nga xam ne doole yëfam la journal ba rax ca doole ne bu dee expérience it moo ko ëppale Balla Gaye 2 moom Gris fu ne jaar na fa ndaanaan bu ne bëre nag yow rax ca doole ne bu dee xeex it moo ko ëppale Balla Gaye 2 yile qualité stade Rebeuss jéy production moo taxawal li ni mel fa séenee bégal amateur yi taxawal diggante Liss Ndiago bu jàmm gën si ak caatu Rebeuss bu Rebeuss bi le combat nag nañ ne moo nar a nekk spécial diggante Abdou Diouf ak Gris 2 ñaari espoir yi daal ñoo fa séenee def boobu spécial yi espoir seen combat bi kenn du ko lijjanti jërë ngeen jëf mbokk yi li nekkoon li gën a fës ci etu bi ñu leen jox dig daje ëllëg incha allah